na leen ko génneel mel ni dañ koo laaj ne ko lu tax mu ne ndax damay bëgg lu ngeen di def ngeen di ko mënal seen bopp ndax dafay faral di mel ni ku la mënal sañal la waaye ka lay sañal yàlla na fekk muy kala war a sañal ñu di ko waxee ci neneen ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu yépp nag imaam Ali mi ngi ñu ko doon dindiloo waaye fii sax liñ gëmoon mooy barke mi ngi yam ci xëyal sa bopp waxuñ nag xëy di tëdd waaye gàtt wërsëg mi ngi yam ci xam looy am diir sàngam ak diir sàngam aayut waaye su fekkoon ne ku nekk dafa def ci boppam nekk kuy créer ay emploi kon su boobaa nii am ci àdduna bi nga xam ne foo xëyee réew mi ne moo gën a développé ci àdduna bi problème chômage ma nga leen di sonal l'islam buñ ko taxawoo nañ ko war a taxawee it bu boobaa loolu dana fi jóg ndax kenn ku nekk bu jàppee ne lépp moo ko war a defal boppam te du xëccoo daraja defe ne yeyowul lu ko kenn di màggale su boobaa àdduna bi dafay daal di jekk dafay daal di neex waaye dafa mel ni safaan bi nag mooy dem di bari te mooy jàpp ne lépp dañ ko war a defal waaye cër bu jógit ak daraja di jóg waru mooy kon bu boobaa yoon jax rek mooy am yal nañ ci yàlla musal nee na gàllaaj bi ñuy wax tul nee na mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak li nëbb te mooy fegu ci lépp mucc koo xam ne wenn ñaawteef wala dara du ko dal wala bariwut lu ko nit di gis muy jàmbat nee na ku bëgg tul na nga ragal yàlla soo ko defee da nga mucc ci lépp loo xam ne looy ragal la Sëriñ Tuubaa mas na koo wax kenn ñëw ci daara bi fekk leen fajar bi jot mu ne leen mbaa biddantiwu leen mu ne déedéet mu ne ku bëgg dara de doo ko def daal di ne dama leen a andil day tey gàllaaju tul ñépp sawar kenn ku nekk ñi jàpp ne xëy na laax mu ñuy rimb la ñu jàpp ne sunguf la leen di jox ñu jàpp ne téere yi ñuy takk la mu rëdd ñetti rëdd tomb ko daal bu njëkk bi mu ne bul yéene kenn lu bon bu ñaareel bi mu ne bul wax kenn lu bon bu ñetteel bi mu ne bul def kenn lu bon daan ne boo ko defee de képp ku yéeneeti wala mu waxati wala mu defati lu bon di ko jëme ci sa jëmm dara du ko ca mooy ca moom rek lay dellu mu waxaat ni alayhi salaam ci ñeenteelu xarañteef bi ne li gën ci lu nit di lëkkalool moo di ngërëmul yàlla jaamu yàlla seet li sunu borom bëgg nga di ca dox loolu mooy li nga xam ne mooy li nit di war a saxoo mooy li nit di war a lëkkaloon nee na doon li gën ci lu nit di doon mooy xam-xam te li koy firndeel dañuy wax ne al ulamaa warasatul anbiya ñii am xam-xam ñooy ndonoy yonent yi loolu kon dina mën a firndeel ne sidna yu nii kat karamallahu bokk na ci ñi ëpple ndono ci yenent bi sallallahu alayhi wa ngir yonent bi seedeeloon na ko ne moom kat mooy dëkkub xam-xam waaye bunt bi jëm si ci moom moom moomu la muy Aliyun karamallahu wajhah nee na ay teggin gànjar la boo xam ne gànjar nag mooy parure wala bijou boo xam ne du xewi du ràpp mukk tey jii ku amoon ca année soixante-dix yi takkaay wala gànjar boo xam ne wurus la maanaam or or bi mën naa gën a seer gaa la nga ko jënde woon boo ko bëggoon a jaay mën nga koo jaayewaat juróom wala fukkam waaye xew wu am wala nit ñu daje boo ko takkee wuti leen ñu daw ne kii gën a am la